donc dañu nekkoon tey am ndaje euh, doon waxtaan ci li nga xam ni dañ ci jëm muy élection législative yi tey bu ngeen ñëwee gis ñi fi teew xam ne ay parti yu am doole ànd ak président Macky Sall ñoo fi nekk ndax ku gis parti socialiste nii taxaw Lamine Gueye taxaw Cheikhouna Mbengue taxaw seexu naa jóob ak seen i jigéen gis LDR Yeesal Mame Awa Dieng ak i jigéenam Bassirou Gaye ak jeunesse beeg adultes yi ñoom Abdou Dieng ak ñëpp gis PTP Maître El Hadj Diouf Baye Saliou nekk nii Manko Serigne Mbacke Ndiaye nga ñëw ci PLD bu Omar Sarr bu Dagana François Fall nekk nii ak Modou Biram Diop ak mboolem parti yi ko wund yëpp FNP les forces nouvelles patriotiques tey ku gis taxawaay bi ñu am ak corps des métiers muy Abdou Aziz Thiam ñoom ñoo daje woon tey di waxtaan pour xool naka lañuy ñuy mën a taxawaate nag xoolaat suñu bopp ci alliance bi ñu yàlla boole ak ñoom li ñu ci gis mooy alliance bi depuis ñu taxawal ko ñu nekk ay alliés ak ñoom ci jafe-jafe rek la ñuy dund ak ñoom Touba nag jàpp naa ni fii mu toll ak réew mi fii mu toll ci fii ñu jëm jàpp naa ni kaawu Touba seul le président Macky moom moo mën a doxale digganteem ak allié yi waxtaan pour ñu mën a déggoo bokkuñu nag ñi chantage pour seen bopp ñun dañuy wut lijjanti pour mën a liggéey pour mu mën a am majorité à l'Assemblée nationale ndax saa va de notre responsabilité la responsabilité de tout un chacun est engagée face à cette situation rampante ndax deme bu ñu sàgganee ba cette opposition incolore inodore et sans saveur ni cas assemblée bi réew mi dana dugg ci gouta te loolu sénégalais yépp a ko war a xam il lui reste deux ans avec tous ces projets yi nga xam ni naal na ko pour le Sénégal ak projet yi mu naal pour Touba jàpp naa ni joxaat ko majorité ñu àggali mandaa bi ak assemblée national dafa gën solal nit tubay ju nit caaya ju amul ñoor. li ñu ko tàmbalee du yomb. gañe moom mënatuñ ci am yaakaar dañuy wax mu leer gis nga nit ñi li ñuy ruumandaat ci suuf bu ñu wéetee naan mënuñoo gañe dañuy wax li tax mënuñoo gañe mooy ñi nga xam ne dañuy schéma nit ñi pour seen i intérêt bopp crypto personnel am na ñoo xam ne ñu ngi waaj a takki jabar ci xaalisu campagne bi lañ ko yaakaar. am na ñoo xam ne waxaale nañ ay oto ba teg ko ci xaalis bii lañ ko yaakaar am ñoo xamante ni waxaale nañ ay pàkk ci xaalis bii lañ ko yaakaar xaalis bu war a mën a tax nag senegal jëm kanam boo ci dee takk jabar di ci wuti pàkk di ci fayi oto damaa jàpp ne naroo liggéey senegal ñoru la ñun nag Sénégal moo ñu ñor ñu ànd ak moom ànd bu fidel ànd bu digne depuis ce matin ku war a xeex ak opposition bi di xeex ci sa biir coalition bala ngaa àgg ci opposition bi da nga da nga jeexal tàkk. ñun yëguñu sax ne ay mooy dugg na ci dëkk bi. pour dire la vérité yëguñu sax ne ay moyens dugg na fi liñ ci fas yéene demee mooy suñu jigéen ñu brave ñii ak góor ñu am jom ñi dem nañu taxaw jàkkaarloog ña yoroon moyens ya ci ginnaaw biñ ñu woowee yëg ni ñu ngi doon waajal dara effectivement mbir boo ñu ca boolewut te bu defet amee ñu tudd ñu ca bu ñu lereen bokk ñu ca dañuy teel a setal suñ bopp ci suba nag lañ doon def waxtaan biñ ci waxtaanee bëgg a setal suñ bopp ci mbir dégg nañ ay nit woote nañu woo nañ ba jox nañ ñu la ñu jox zone yi la ñu jox zone yi nag ku ne xam na ko douze parti politiques nag nga jox leen la nga jox zone yi loolu ku ne xam na ni boo bëggoon nit ña lay jàppale gañe sa bopp la ñor ñoom dañoo waroon a génne sax li ñu yor renforcer ñu candidats yi génne li ñu yor renforcer ñu ñu liggéey parce que du ñun kenn ci ñun bu élection jàlle yaay toog assemblée wala yaay dem ca banque bi di fay sa un million nangam di jot say carburant mais nag bëgg Sénégal gëm ni dañoo war a jàppale président Macky Sall suñuy directives yi parti pour ñu ànd ci coalition bi moo waral ñu def lii ñu def danañu démarrer ci suup lii ñu yor nii Cheikhouna Mbengue wax na ko léegi Cheikhouna Diop wax na ko léegi dajul sax benn benn parti politique benn responsable politique képp fii waxuma la parti mais responsable boo ko joxoon mu am problème après parce que du mën a liggéey ndax li ñu boot moo ëpp doole seeni zone ñoom fii responsable yi fi ne la ñu boot moo ëpp doole seeni zone ñu di ñu léser di ñu bëmax di ñu conc di làqatu ci ay douche di làqatu ci ay salle de bain pour séddoob xaalis pour seen bopp képp loolu nag président Macky Sall la ñuy interpeller directement ak Mimi Touré mi nga xam ni tey elle est la tet de liste et pour une première dans l'histoire politique du Sénégal dans l'histoire de la nation qu'une femme brave dame boo xam ni lu ne bravé na ko fi lu ne dégg na ko fi président wóolu ko dénk ko lan moo tax mu bàyyi fi góor ñi lu jox ñu luubal ko doy doyatuñ ko mu jël jigéen jox ko kooku yaakaar ne bu ñëwee fii ba dem jàmm fii am mu ñëw ba dem ñi làqatu nit ñeeg wër-wërloog nit ñi depuis quatre jours nit ñaa ci terrain bi ana ñu ñun ñu ngi nii di def ay conférence de presse ak wax pour lan parce que bëgg a moo ñu ñor on était très bien parti pour gagner les élections doy da lu ñu de dañoo tàmm luubalub xaalis xam nañ li ñu doon ñun doy da lu ñu parce que ñun doyadu wuñu ñoom xam nañ ñun ñooy ñan bu ñu tëjoo xamante nañ bi ñu demee ci parrainage bi xam nañ ñun lañ ca liggéey Malick Fall ñu ngi lay interpeller du ñu wax nag parce que am na lu ñu waxtaanee woon xam nga li ñu wax mais kenn doyado lu ñu li nga xam daal moom la ñuy wax mooy président Macky Sall wala Mimi Touré suñu bëggee gagné Touba ak quatorze quatre-vingt-quatorze village quatre-vingt-quatorze villages village bu ne mën naa ëpp département ab dëkk boo ko bëggee gagné ak ñeenti nit ñuy def schéma di wër-wërloo nit ñi loolu ku la wax ne mën ngaa gañe waxu loolu am nañ ko ñime bari na xam ñu ngi tëdd ci seen i néeg naan mënta gañe te buñ génnee naan man ngaa gañ barke Serigne Touba dañ lay nax waxuñu la dëgg te dañ lay wor parce que liñ lay wax bokkul ak li ñuy wax ci biti ñun nag nous avons osé le dire parce que dañu am courage yu jàkkaarloo ak yow pour wax la ko nous vous nous vous interpellons jàppaleel alliés ñu mën a liggéey soo bëggee gañe départager ñu ak sa gars yi ku ne dem yoonam ñu liggéey gañe soo ñu dooleelee gañewuñ bu ëllëgee bul waxateeg ñun dara bul ñu tuddati xam ne mënuñu parce que ñun gëm nañ ni man nañ comme man nañ nag bul nangu muk ay quelques nit di di di nit ñi di schéma nit ñi di dugg ci ay détails uniquement pour seen bopp yooyu dafa jeex dañoo sonn dañoo damm dañoo tàyyi ci muñ gi ak bañ a wax ji danañ ci waxtaan danañ xool lu ñu mën a wax ak lu ñu mën a def kuñ mën a waxal danañ wax ak yow mais conditions yi mënatuñ cee dem